وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan yàlla mu jéggal ni suñu bàkkaar yi ñuy def ci semaine bi yépp yu ñu yëg ak yu ñu yëgul ñu leen ndokkeel ci sang bis yi nga xam ne mooy bisu aljumaa suñu xutba tey dafay dellu si li ñuy wax al amaana al amaanatu min acdami diyaana al amaana mooy kóolute kóolute mi ngi bokk ci yi nga xam ni dafa bokk yi gën a màgg ci diine kóolute googu nga xam ni yàlla wax na ci alquraan ci ay façon yu wuute ci ay barab yu wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi ko ci xadiis mu nekk loo xam ni lu jullit bi war a sàmm wanteeg la ànd ak ni léegi-léegi dañu koy bay bayal dañu koy xaw a ñàkk a jox solo fekke ni yow mi nga am solo lool bu ko defee amaana googu la ñuy wax sàmm ko buñ ko defee lu ñuy jural ak it bu fekkee ni sànq nañ ko lan la ñuy jural yàlla mi wax ci alquran ni inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha ne yàlla mu ngi leen di digal yéen jullit ñi ngeen di delloo kóolute boo xam ni yàlla dénk na leen ko wala nit ñi dénk na leen ko ñaar yooyu ñoo am ànd boo xam ni yàlla moo la ko jox muy dellu ci sa wàllu bopp wala muy dellu ci sa njaboot wala ànd boo xam ni da koo jaarale ci loxo nit ñi jox la ko mu nekk ñaar yoo xam ni yëpp da nga ko war a sàmm yàlla nee na mi ngi leen di digal kóolute googu ngeen fexe. وبو لين كو جوخه بو نين ديمي باغي ديلو نا نين كا ديلو نيغا خامني ньоكا ييلو تي انام بيغا خامني تي لا غنا رافيتي وايت موني جوخ موني واخ صفان بي ني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون نينا بولين وور يالا ولا يننتم بي ولا اك يننتم بي صح ناخ بو ووري يالا رك وور غا يونتي صلى الله عليه وسلم بو ووري يونتي وور غا يالا neena bu ngeen ko defee di ngeen wor seenu kóolute bu leen def loolu fekk fekk yéen ba ngeen koy def yéen xam ngeen yàlla moomu mu def kóolute mu bokk ci màndargay gëm yàlla yi nga xam ne moo gën a màgg ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy wax ci xadis ne laa imaana illa liman amaanata la nee nee na ngëm yàlla ñeelul koo xam ni amul kóolute نحن قاعدين نعمل كل ده فك جمنا يلا يتجم يلا ما تقول لا إيمان لمن لا أمانة له نعم نحن نجم يلا عمل تكو خمني عمل كل ده كون خمني كل ده جوجو من مينغي بوكو تي ينغ خمني ده فجنا مغ ده يلا بينغ خمني جارل نكو أسماني جرو ميار جارل كو سوف جارل كو مونتاني wax leen ndax man man naa leen koy jox ñoom ñëpp dañoo gàntal ndax ni mu diisee ak ni ak ni responsabilité bi toll waaye bi loolu amee biñ ko gaaralee doomu aadama nag moom nag daf koo gàddu ñu ne amaana googu yàlla di wax ne inna aradna al amanata ala al samawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan kon kooku ban amaana la ñu ne loolu mooy at taklif togg jëf gi la yàlla togg jëf bi nga xam ne dafay dellu sa diggante ak moom ci ay santaane ak li nga xam ne dafay dellu sa diggante ak moom ci ay tere yooyu nga fexe ba sàmmwante ak moom loolu ak amaana la goo xam ni dañ la koy laaj sa diggante ak sa borom waaye yemul ci loolu dafay dellu li nga xam ni it sa diggante ak nit ñi la liñ la sant ni nga war a mel ak ñoom comporté wa ak ñoom ci sa njaboot wala ci sa bërëbu liggéeyukaay wala ci biir société bi la liñ la sant ak li nga xam ni tere nañ la ko nera nga fexe ba maytu ko kooku yi dafa nekk loo xam dañ la koy laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis ne mu ne ndax du ma leen xibaar kan mooy muumin ne jullit mooy kan ndax du ma leen ko xibaar ñu ne ko xakañ mu ne jullit mooy koo xam ne nit ñi wóolu nañ ko ci seen alal ak ci seen bakkan bu fekkee ni dafa am ak ñoom am lanteeg ñoom ci wàllu alal moo xam dañ ko koo dénk wala dafa nekk loo xam ne daneen koo amel wala da leen koo jox war a war a jox dina fexe ba sàmm wanteeg seen xaq ba joxe ko ni nga xam ne noonu la waree waaye it nit ñi wóolu nañ ko ci seen bakken mooy nekkul koo xam ne dafay fàggaagal nit ñi di fat seen bakken wala mu nekk loo xam daf leen lor ci ak ngaañ xam ne kon mu ne jullit bi dañ koo néeg mu nekk koo xam ne dafay sàmm wanteeg lute donte ni ka muy jëflanteeg daf koo wor yent moo ko ci xadit nee na yow jullit bi na nga fexe ba buñ la wóoloo na nga sàmm kóolute googu donte ni ko que seqal dafay nekk la lay war boo lay wor yow defal li nga xam ni moom moo la war sa diggante ak moom nga xam ni moom dafa jàdd yoon ma ne kon nga xam ni sàmm kóolute googu cosaan la ci diine cosaan la ci li nga xam ni yàlla dala ko sant bi ci njëkk mooy sàmm tawxiid wéetal yàlla yàlla dañu fay andi ngir ñu nek ño xamni dañ koy wétal ci jaamu ci façon yi wuté yi mo xam da koy wétal ci tawhidur rububiyya xamni moy delu ci ni amul kenn ko xamni moy dundal wala moy ray wala moy wërsëgale wala moy faat wala moy amal wala moy ñàkkal ku yàlla loolu nga nangu ko fas ko fexeel ba dajé ak yàlla nek ko xamni loolu amul lenn lo xamni gar nako ci ndax loolu ninkaane la xam dañ la ko sante beneen bi mooy buy dellu ci wàllum tawxidul uluhiya mooy bi nga xam da nga koy jaamu dem ci wàllum jaamu mooy ñaan mooy sujjóot mooy yaakaar yooyu yëpp nga fexe ba booy dajeeg sa borom it amul lenn loo xam ne ko du yonent du sëriñ du dara keneen koo xam ni porox ndoll goo xam ne nga ko ci loolu nga xam yàlla rek moo ko jógoo kooku it la ñaareel bi mooy fexe ba sàmmanteeg cër yi nga xam yàlla dala koo jox muy aljawaarix si jiitu mooy alxawasul khams manam cinq organes de sens yi moy gis bët bakken la xencu gemign ak li nga xamni moy nop nopp deg ak la nga yek ak mbollem cër yi nekk sa yaram bi bu ci nek dafa am lo xam non lañ la sant bët ba bu mu xol lo xamni dañ ko ko tere bir ba ba xel ba bu boo ciy dugal nañ ci duggal lo xamni lula lew la ki noonu tànk na nga dox jëm ci fo xamni ne fu ñu gërëm la yoy yeb ndax kat ëlëk dañuy taxaw daaj leen ndax inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula yàlla moo ci alquran ne bët wala dégg ak la ngay gis ak sa xol la ngay xalaat sax ne yoy yeb yëpp keroog yoomal qiyam dañuy nek ñoo xam dañ leen laaj yow duñ la laaj ñom lañuy laaj ñom ñoo war di tontu kon yoy yi nga samwante ak mom benel bi moy julli julli gi nga xamni farata la ci ñun muy juróomi julli ak yeneen nawafil yëpp amaana la goo xam ne sa digganteeg sa boroom la nga sàmm sàmmanteeg moom ci lan charte yi nga xam ne moo jiitu ci laab ci waxtu ba ci jublu penku sol yére yi laab sol yére yoo xam ne yu jot la ak yi nga xam ne ay farata ci biir nga fexe ba sàmm sàmmanteeg moom kooku it boo demee ëllëg dañ la koy laaj ak it li nga xam loolu mooy dellu sa digganteeg sa borom bu fekkee li nga xam dafay dellu si digganteeg nit ñi lu mel ni barabu liggéeykaay ba xam ni fa nga nekk wala balaa loolu sax mooy njaboot gi nga xam ne ñoo génnee ci yow yàlla jox na la njaboot benn muy xéwal xéwal la waaye it xamal ni amaana la goo xam ne dala koo jox dala koo dénk dénk la ko am yoo xam ne ni da koo waral sa digganteeg ñoom ba ci njëkk mooy na nga leen yar na nga leen yar fexe ba teg leen ci yoonu njub na nga leen jàngal jàngal leen seen diine bi ci jiitu mooy alquran nga da leen di laaye biir di leen di leen conseiller di leen tette waaye di leen jox ay ndigal it am na loo ci xam ni da nga naan ko defal lii ndax boobu xamagul luy njariñ li fexe ba tënku ko ci bul topp loo xam ni moom mooy bànneexu bakkanam rek ndax ba xale moom mook bakken ñoo yem lu leen neex rek lañ bëgg lañ xam ko defee yow mi nga xam ne yow yaay way juróom yow yaay li yaa xam li gën ci moom nga fexe ba digal ko mu nekk ca ak sàmm leen ndax loolu bu fekkee ni defuloo ko ëllëg boo taxawee sa diggante ak sa borom moom ci boppam moo lay njëkk a kalaameek yàlla donte ni moom am na ci part de responsabilité waaye dina ne yàlla ah sama wajur bii kat bu ma juddoo la nga xam ne moo waroon sama digganteeg moom ci yar ma ci xamal ma sama diine ak ya ca aju amu ci woon taxawaay ba nga xam ne moo waroon kon loolu it dañ la koy laaj kon loolu mooy li dellu sa diggante ak sa borom beneen bii mooy bi nga xam dafay dellu sa diggante ak nit ñi bu fekkee da ngaa nekk bërëbu liggéeyukaay dañ laa jiital wala jiitaluñ la na nga fexe ba amaana googu nga xam ni moo nekk foofu na nga ko sàmm. da ngeen da ngeen tënk ne bu ñuy xëy huit heures xëy na ngeen fexe ba waxtu boobu na ngeen ko respecté ndax loolu ngeen tënkante yéen ndax loolu kat kóllëre la wa awfu bil ahd nee na yàlla nee na da ngeen di matal kóllëre bu fekkee dem ngeen ba fasante ko bu ko fasalantee rek fasal diggan bu njëkk laataa ngeen koy fas warul woon waaye bu ko fasee rek xamal ne nag léegi nag war na nag yàlla am na ci am na ci place nga am kiit sàmm kóolute gi bu fekkee ne da nekk koo xam ni dañuy jël alalu askan teg ko sa loxo lu mel ni njiitum réew la wala njiitum dëkk la wala mu nekk koo xam ni ministre la wala yu ni mel a xam ni am na loo xam ni askan woo ñoo ko jël dajale ko tànn leen yéen ni yéen lañu bëgg ngeen jiite ñu yéen lañ jox suñu wàllum wér gi yaram yéen a koy saytu suñu wàllum njàng suñu wàllum dund yooyu yëpp yéen a koy saytu am lenn loo xam ne jël nañ ko ci alal jox leen ko ne leen kat loolu na ngeen ko ca doxalee bu fekkee ni jël ngeen alal ja dugal ko feneen foo xam ni bokkul ak fa askan wi bëggoon di ngeen ko layoog askan wi bi ci njëkk waaye ñaareel bi di ngeen taxaw seen kanam borom layoo ko ak ñoom layoo ko ak moom. kon loolu daf ñuy may ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ñoo ñu jiite li nga xam ne xew na jamono jii ci réew mi ndax boo xoolee ñaari at yu passé ci ginnaaw am na benn feebar bu ci duggoon feebar boo xam ne demoon na ba tere nit ñi. seeni jaamukaay yi yàlla sax dañ koo tëjoon ndax dañuy bañ feebar wi tasaaroo dem ba nga xam ne yegg nañ ci ne di nit warul déplacé wu dëkk ak dëkk mën ngaa nekk mbuur sa way jur nekk jurbel wala Kaolack feebar bay bëgg dee waaye mayuñ la nga mën a dem sax seeti ji ko ndax ni dañuy bañ nga déplacé feebar bi am na ñoo ci xam ni mënatuñu liggéey ñoo xam ni bis dañ daan liggéey bu ñuy liggéeyee mën a am lu ñu yóbbu seen kër dundal seen njaboot mënatuñu ko am na ñoo ci xam ni jëlee nañ ci ay feebar am ñoo ci xam ni faatu nañ ci waaye ànd ak loolu yëpp am alal yoo xam ni dañ koo dajale woon jël ko jox ko suñuy njiit ne ni ah comme que fi ñu toll nii li ñu daan doxalee feebar bi mayeetuñu ñu doxalee ko noonu kon alal ji na ngeen fexe ba mu remplacer lool waaye maal asaf malheureusement ñenn ci ñooñu ña nga doon njakkate ña ngay profité alal ji di ca enrichir ci fexe da ci jël di dugal seen poche fekk ñu askan wi ñoom ñu ngi toog bi souffrir di sonn ñu leen di laay biir di leen fàtte ni fàttali ne na leen loolu ngeen def de xam leen ni bu ci njëkk laq ngeen seenu rëbb ak seen mer askan waaye ñaareel bi xam leen ni di ngeen taxaw seen kanam boroom la yoo ak moom xam ne nag bu leen bu leen naagu bu leen découragé tuub beesuwul tuub gi mooy lan mooy bu fekkee ni yaa ngi moom jël ko nga delloo ko fa nga xam ni fa la fa la askan wi dellu ñaareel bi nga taxaw jéggalu leen askan wi ne da juumoon nit nga waaye bu dul lool it xamal ni bu fekkee ni am nga koo xam ni moo lay aar ba nga mën a mucc fii ci àdduna bi ba dara du la fekk ci ay daan xamal ni am na benn buur boo xam ne mu ngi lay xaar ëllëg nga xam ni keroog moom kenn mën na laa muccal ci digganteeg sa moom sa digganteeg moom kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax beneen bi it mooy amaane gi nga xam ni mooy nekk diggante ñaari way dencante dañ leen a sant ñoom ñaar ku ci nekk rafetal jëmale sa morom ku ci nekk am na loo xam ni yow la ko yàlla dénk ku góor ci yow la ñuy wax yow yaay kilifa yow yaa war a dundal yow yaa war a aar yow yaa war a yiir yow yaa war a suturaal yaa war a sàng yooyu na nga fexe ba taxaw ci sa kéemtalaay kattan na mu gën a rafetee ku jigéen ci yow dañ ni la yow dañ laa yilif kii mooy sa kilifa na nga fexe ba topp ko bu nekk bokk ci ñi nga xam ni dañuy woote naan affaire de parité wala jigéen dafa war a am benn taxawaay bi ci société nangam nangam jigéen nañ koo gannaawal ña gëm lool lool ñëpp xamal ni nekk ñoo xam dañoo topp njàngaleem lislaam boo leen toppee dañ lay sànk rek gis nga kon loolu mooy bu fekkee ni sànk sàmm nañu kóolute goog nga xam ne yàlla wax nañu ko suñu diggante ñun suñu biir waaye suñu diggante ak suñu borom léegi nag bu fekkee ni sànk na sànk nañ ko ñàkk dañu ko respecté lan lañuy ñuy jural yonent bi sallallahu alayhi nee na dafa am benn bis mu toog di waxtaan benn waay ñëw ne ko yent bi kañ la gis pe kañ la bis penc mooy yowmal xiyam ñu ne faalewu ko ñu ne dégg na ko waaye faalewu ko continué ci waxtaanam bu mu demee ba waxtaan bay jeexal daal di laaj ne ana ki doon laaj bis penc kañ la mu ne ko maa ngi nii mu ne ko saay soo xamee ni sànq nañ kóolute ñàkk nañ koo respecté rek xamal ne bis penc jege si na ndax mbokk yi kon ñun ndax bis penc jege si wul fi mu ne nii kóolute ñu koy sàmm sàmmanteeg ñun fi mu ne nii ñu néew la ndax ñun dañ koo tënk ci ne buñ la denkee alal rek nga fexe delloo ko na nga xam noonu lañ ko denkee woon fekkee ni yow weesu na lool dépassé na lool ëpp na ko làmb na li nga xam ni ay taklif la ay mbir la yoo xam ne yàlla dala koo togg ay kóolute la yoo xam ne danga ko war a rendre compte sa boroom ëllëg ak li nga xam ni moom nga war a jëflanteeg sa njaboot ak sa soxna ak ñi nga xam ni mooy nit ñi. nee na mu ne ko ñu ne ko lan mooy sànq kóolute mu ne bu fekkee ne dem nañu ba jël mbir jox ko koo xam ne yeyoowu ko rek xamal ni sànq nañ ko lu tax ñu jox ko ko ngir ñi jege ñaale la ñoo bokk famille wala ngir ni ñoo bokk giir wala ngir ni ñoo bokk pas-pas ñoo bokk tariqa wala ngir ni ñoo bokk parti wala association wala daal am na ak jege koo xam ne daal moo waral daal nga jël nit jël ko am loo xam ne jox ko ko te leer na la nga ko jox yeyoowu ko du xam nga du compétence ba ci dara léegi nag loolu la muy jur mooy ña nga xam ni ñoom la yilif wala ñoom nga xam ni ñoom la war a jëflanteeg ci loolu ñoom ñoo cay loro ndax mbir mi da nga koo jox koo xam ne xamu ci dara bu ñu demee ba yegg ci bërëb yi nga xam ni fa la ñuy fajo nga xam ni mooy directeur ba ñu ñëw jox ko koo xam ni xamul dara lu jëm ci wàllum santé xamul dara lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ñu jiital ko foofu xam nga loolu maa day taani ni ki noonu it ki nga xam ni moom mooy ministre bi ci boppam ñu ñëw dénk ko koo xam ni xamul dara ci santé loolu it ay musiba la yoo xam ni yeneen yi juddoo ci yooyu yëpp xamal ni yow mi nga xam ne yaa jël mbir mi jox ko ka nga xam ne yeyow yeyowu ko yow yaa ko sabab kon yéen saa sallam nee na bu fekkee ne gis ngeen loolu rek xam leen ni bis penc ma ngay jege si ñaareel bi mu ne yow mi nga xam ni ki nga xam ni moo nekk ci bërëbu liggéeyukaayam bu fekkee ni dem na ba nga xam ni dafay profiter ci fonction bi nga xam mom moom la occupé bay def lo xam may yoon mayuko lolu xamal ni lolu bokk na ci li sank bokk na ci li nga xam ne dafay sànq ak amana moy lu mel ne li cité sank moy li ñu tudd sànq boo jël nit jox ko ko xamni jox ko nit ko xamni ni and ak ni bobu yow yaangi ngi ak mandu yaangi ngi ak compétence motax tax nit bu féké ni jiit ni bu féké dafa nek ko xamni ne ku sentimental rek ñamu jité ñoo ciy njëkk a ndax dañ ni mandu al adala ahaddu min as-sayf mandu moo nekk li nga xam ne moo gën a ñaw jaasi ñaari boor la bu fekkee ne doxal nga ko yow doo am gam-gamle sa diggante ki nga bokkal ak ki nga bokkal yow daal li ngay jiital mooy ki nga xam ni lii ñuy wax liñ ci soxla moo gën a man moom laa koy jox waaye fekkee ne da ngaa jiital sentiment rek mooy waral nag yeneen yi ci juddoo ci ak ñàkk jubal ji ci amee mooy waral nga gis koo xam ne jox nañ ko jiital nañ ko ci nit ñi ba ci imaama jiite nit ñi ci julli wala ci waxtaan wala yeneen mu jox ko ko mu leer la ne kii lañ koy def la mënu ci dara fekk ni yooyu li ko waral mooy sentiment gu bari kon wakku jullit yi nga gis ni kon amaana boobu am na benn place bu kawe bu am dayo boo xam ne am na ko ci lislaam waaye it ñu bañ nekk ñi nga xam ni dañ koo tënk ci ne mooy ma dénk la alal nga fexe ba delloo ma ko anam bi nga xam ne noonu laa la ko dénkee woon kese déedéet gën na yaatu loolu moom dafay dellu ci li nga xam ni ci say responsabilité la dellu yëpp père de famille nga wala liggéeykat nga ma xam dañ laa jiite wala da ngaa jiite am na yoo xam ni moo la war ca digganteeg ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteen yooyu ay amaanaat la yoo xam ni dañ la nga ko war a matal sa digganteeg ki nga xam ne moom nga ko seqal ndax boo ko deful yéen ñaar daan di ngeen ko layoo benen bi dang da nga ko laaj sa diggante ak sa borom ndax yéen ñaar yéen a ko sifé won ba yàlla sédé ko deng nga kon mu nek yi nga xamni da fay dellu ci haqu yàlla ak yi nga xamni da fay dellu ci xàqu ki nga xamni mom moy nit ñi borom xam-xam yeb depo nañ ci ne yàlla bi mi wax ci alquran ne inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal ba aaya ba jeex ñu ne loolu li ñu dëppoo woon ci ne maanaam yàlla nee na dañoo gaaral kóolute ci asamaan ak suuf ak montagne yi ñoom ñëpp ñu bañ ne duñu ko gàddu ndax ni mu diisee waaye dañ ko tiislu waaye ba nga xamee ni gaaral nañ ko doomu aadama moom moo ko gàddu ñu ne loolu moom mooy togg jëf yi nga xam ne yàlla togg na la ko jëf sa digganteeg moom waaye ak yi nga xam ne dafay dellu sa digganteeg nit ñi mu nekk yoo xam dañ ko war a sàmm war koo bàyyi xel bu baax ndax bu fekkee ni defuloo ko rek safaan ba ngay def muy contraire ba muy xiyaana xiyaana mooy wor nit nag bu woree nag moom xamal ni bokk na ci mandarga yi nga xam ne mandarga yi naafeq la yéen bi sallallahu alayhi wax na ko ci xadis ne naafeq mooy ki nga xam ni saay su waxee wax lu dul dëgg saay suñ ko wóoloo mu wor gis nga kon dañ laa wóolu woon am loo xam ne dañ ko siifee woon ak yow ba ngeen dëppoo ci ay kàddu respecté woo ko kon da nga wor kon xamal ni bu fekkee ni yaa ngi wor ci façon yi nga xam ne tudd nañ ko yëpp xamal ni kon yow yaa ngi am benn mandarga ci mandargay naafeq te naafeq nag yàlla nee na ci alquran ñoom ci suufu safara la ñuy nekk yàlla nañ ci yàlla musal dégg nga beneen bi it mooy saay su joxee rendez-vous mooy saay su joxee daal du ko respecté ba léegi wóolu nga joxe nangam di toog di la xaar waxtu wa jot gisu la kooku it ak wor la kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu defal ñu dégg ak topp ان يالله مو خيرني تنجب تسخلني يالله دبولي نجوك لنا خادني مم لبق مم سبحانه وتعالى يالله يالله دفن نجوك بجاه رسولي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك شر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله